màggal gi mën a ñoŋ bu loolu weesoo enseignement supérieur bi laay wax parce que jaare dafa nekk mbir boo xam ne lu am am solo la te fii Sénégal école de formation yi bëri na bëri koo xam ne kenn xamul nu mu mm-hmm. te ñu ci bëri ci ñoom soose amuñu sax li nga xamante ne euh, moo di agrément wala ñu ci bëri état bi reconnaître la ko parfois da ngay dem ci école de formation nga fay sa xaalis bu bëri nga pare boo demee diplôme bi doo ci gis li nga xamante ne moo di agrément état bi wala état bi di wane ne reconnaître na ko mm-hmm. te loolu ki nga xamante ne moo am diplôme bi da ciy sonn parce que mënoo yow nga ne am nga sa bac demoo université nga dem fay ji pour ñu def jo am may jox la ab jàng boo xam te ne euh, c'est une étude euh, supérieure wala jàng boo xam ne am na qualité ba diplôme bi foo ko yóbbu. Mm-hmm. dina la mën a jëriñ après yow. dangay ngay pare ñu ne la état bi reconnaître ko après élève bi dafay nekk di tëstasi wala muy nekk di toltalaan wala muy obligé dem utaat beneen école boo xamante ni c'est reconnu wala école boo xamante ne dina ko jox jàngale bu baax a baax mu daal di koy am pour man mm-hmm. euh, état bi na jëlaat bu baax a baax mesure yooyu ñu xool yan école la ñuy tijji mais itam ñu xool yan école la ñuy tijji mais itam ci ban fànn la ñuy tijji école yi parce que xam nga pour man yenn yenn domaine d'activité yi pour man waruñ ci tijji n'importe quelle école mm-hmm. comme lu ci mel ni santé soose xam nga santé dafa nekk mbir yoo xam te ne c'est sacré mm-hmm. euh, mais da ngay gis parfois léegi école de santé yi bëri nañ ñi nga xamante ne ñoo di infirmier yi bëri nañ te bakkan dafa nekk mi moo xamante ne dafa fort mm-hmm. donc mbir yooyu bu ñu ko defee pour man dina ñoŋalaat bu baax a baax li nga xamante ne moo di enseignement supérieur bi te yaakaar naa ne ñoom conscient nañ ci mbir moomu ba tax dañu daal di koy wax euh, bu loolu weesoo euh, premier ministre bi wax na ci li nga xamante ne moo di mbirum insécurité bi sonal jamono ji démb ba ba ñuy ci mbirum insécurité bi dama ne ko waaw pour man li gën a am solo ci li nga xamante ne moo di conseil bi lii ci la bokk. parce que mm-hmm. tey jii bu ñu waxoon ba pare te génnewuñ ci insécurité bi man hors mm-hmm. sujet la ñuy def. parce que actualité la jamono ji ku ko wax ak ku ko waxul askanu yëpp si cause dañuy dund. jaar mm-hmm. ku ko wax ak ku ko waxul yaa ngi dem. mais tiitaange ngay demee. nga gis sax nit day tax ba ci kanam di gestu am na ñu naan la man fi mu ne nii ñemeetuma sama néeg donc pour man war nañ ci jël ay mesures yi nga xamante ne mbir yi dootu fi amati xam nga insécurité yàgg na Sénégal mbir yi par période la fay am am na benn période affaire u sàcc xale yi moo xewoon. Mm-hmm. da daan ñu ne la bërëb bi sàcc nañ fi xale ainsi de suite donc ay période lay doon mais pour man période yooyu war nañu def de telle sorte que ñu éradiquer ko parce que sinon rek mbir mi bu jëmee loxo du baax ci euh, benn sénégalais bu loolu weesoo également ñu rationaliser li nga xamante ne moo di dépense yu état bi pour man c'est très très important parce que état bi daf ñuy coûter cher bu baax a baax. et administration également nañu ñoñ ñoŋalaat seen toogaay ci administration parce que parfois da ngay gis yoo xam te ne jaare dafay génn dem añi ji wala ndékki ji machine am noonu la koy bàyyi climatiseur bay tàkk. Mm-hmm. noonu la koy bàyyi lampe yi noonu la koy bàyyi yow même bu fekkante ne yow xaalis boobu jógewul sa poche directement mais indirectement yow yaa koy fay parce que peut yaa ngi fay taxe wala yaa ngi fay mm-hmm. impôt yoo xam te ne dañ ci dagg loolu daal di fay li nga xamante ne mooy di dépense yooyu donc nañu ñoŋalaat bu baax a baax ñun nga xam te ne ñooy nekk ci administration yi ñoŋalaat euh, bu baax a baax suñu taxawaay parce que état bi mënul bu nekk mu dugg fa pour vérifier ndax fay nañ lampe bi wala ndax climatiseur bi mi ngi tàkk mais ñun ñi nga xamante ne ñoo fay liggéey ñu su loolu pour man suñu responsabilité yi suñu responsabilité la ñuy defar ñu ñu ñu ñuy am yenn comportement yi nga xamante ne mm-hmm. dina mën a jàppale li nga xamante ne moo di état du Sénégal yooyu daal pour man euh, bu ñu ko defee jaara mm-hmm. dina gën a ñoŋal li nga xamante ne moo di nekk bi bu loolu weesoo suñu njiitu réew mi également war na dem fi nga xamante ne moo di Chine visite mm-hmm. le 3 ak le 4 septembre xam nga pour man Sénégal jamono ji dañoo toll euh, ci benn phase boo xam te ne macha allah ñëpp bëgg nañu lëkkaloo ak ñun. parce que am na ay jéego yu bëri yoo xam te ne au niveau. international wala national ñu ngi koy def gis nga lancé nañ li nga xamante ne moo di satellite suñu pétrole également mi ngi mi ngi ñu ngi koy commencé di def donc te Chine ku ne xam ne ne puissance bi nga xamante ne moom Chine am na ko dans le monde entier donc rek di wax ne état bi tamit mu yokkaat li nga xamante ne moo di liggéeyam pour que véritablement képp koo xamante ne yaa ngi dund ci Sénégal nga mën ci gis sa bopp. Mhm. am na solo professeur Sougou communiqué baa ngi noonu lan nga ñu ci mën a càmbaral. waaw euh, communiqué bi je pense que am na ay points yu essentiels yi nga xam ne président de la république évoqué na ko. Euh, saluer na organisation bi nga xam ne organiser nañ ko màggal de Touba bi après tamit mu inciter les acteurs yi nga xam ne ñoom ñooy gérer comité d'organisation yooyu. Mm-hmm. ñu amaat beneen taxawaay ci yeneen événement religieux yi ñëw dans différente localité loolu mu nekk rek comme ni ñuy wax jéego yi nga xam ne daal état la parce que état aussi moo njaboote lépp c'est pas parce que état benn structure bi nga xam ne la dafa am benn dimension politique ba du rapporté wu ci yeneen mbir yi non. parce mhm. que le fekk mu njaboote lépp rek le fekk mu nekk au début et à la fin de toute chose rek day euh, intéressé wu ci lépp euh, day coordonné lépp aussi beneen bi mooy euh, la problématique de l'enseignement supérieur mu nekk mbir moo xam ne vraiment ñu ngi ko doon xaar ñu ngi ko doon xaar président addu ci gis nañ nag yenn jéego yi nga xam ne l' ministre du docteur Abdourahmane Diouf mu ngi ko ci dox mais je pense que enseignement supérieur dafa nekk benn domaine bi nga xam ne yàgg naa rencontrer ay problème euh, problème yooyu nag bëri na bëri boo xam ne tey jii nii mënuñoo ñëw d'un jour à un autre rek saafara problème yooyu il faut Euh, benn euh, procédure bien déterminée boo xam ne day am euh, yenn dynamique yoo xam ne moom ngay évoluer teg ay stratégie indi ay perspectives et être prêt à relever des défis pour defaraat secteur boobu di enseignement supérieur et que comme li ñuy faral di wax tey jii nii étudiants yi dañuy gis ni dans les universités publiques dañuy rencontrer de sérieux problèmes à chaque fois da ngay gis ni problème de logement day am à chaque fois problème aussi Euh, de finance day am mais euh, problème bi nga xam ne moo nekk problème bi gën a remarquable mooy euh, le contenu et que tey jii nii boo xoolee honorable bi muy lire communiqué bi mu ngi koy wax mun ngi naan président war na taxaw nee na nañ acteurs yi taxawaat pour xool nan la ñuy gën a favoriser recrutement des enseignants au niveau de l' enseignement supérieur mu nekk mbir boo xam ne tey jii nii soxna jaara dañ koy euh, saluer parce que su ma nee at parmi les problèmes am na problème mu contenu li nga xam ne moom la étudiants yi di jàng loolu lan moo koy waral d' une part mooy insuffisance bi nga xam ne am nañ ko par rapport euh, au corps euh, professoral ñi nga xam ne ñoom ñooy jàngale donc day nekk daal vraiment li nga xam ne suñ ko permettre non seulement ñu gën a am yenn assises intellectuelles yi mais dinañu permettre ñu gën a indépendant ci yenn domaines yi ci yenn secteurs yi parce que tey jii nii suñu gisee satellite bi nga xam ne président àdduna ci euh, Sénégal lancé na ko au niveau des États-Unis dañuy gis ni ce sont des experts sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo euh, ŋànk mbir mi wala boog ñoo ci majoritaire ba nga xam ne mbir mi am na et que loolu noonu dafay am fu muy jóge su ñu defaree enseignement supérieur bi am na yeneen jéego yi nga xam ni Sénégal war na ko mën a dox euh, loolu li muy gën a wane mooy que. Euh, dans des différents secteurs wala dans des différents domaines da ngay gis ni il existe un rapport de complémentarité de telle sorte que benn bu baaxee rek mën na baaxal yeneen. Mm-hmm. Euh, donc tey ji nii enseignement supérieur bëri na ay problème su ci président Addo am nañ yaakaar ni waxuñu d'un seul coup que problème yëpp dinañ leen saafara mais problème yi dinañ am yenn jéego yi nga xam ne danañ ci dox ba nga xam ne danañ ci saafara yu ëpp euh, beneen mbir bi nga xam ni euh, wax nañ ko ci conseiller des ministres bi mu nekk lu am solo mooy euh, la rationalisation de l'État xam nga suñ nee rationalisation de l'État mooy dépenses yi nga xam ne tey jii nii état bi mu ngi koy def te mu leer ne am na feneen fu mu xajoon et que loolu noonu il faut que tey jii nii premièrement mu am benn fii patriotique bi nga xam ne moom mooy daw ci Sénégalais yi nga xam ne lii euh, nga ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay consommer yow sa yëf la ba pare euh, tey jii nii il faut que ñu amaat beneen taxawaay bi nga xam ne war nañ ko mën a am ca fa ñuy liggéeyee xam nga soo see benn jour daf koy wax mu ne am na ñoo xam ne li ñuy def seen kër yi lañ koy commencer da ngay gis benn kaas sax bi nga xam ne nekk na foo xam ne yaa ngi fay jaar mais doo ko yëkkati mu nekk xam ne tey jii nii yenn leçon yi nga xam ne war nañ koo jël. Euh, au niveau euh, le plus ba ba nga xam ni moom la ñuy yóbbu fi nga xam ne fa la ñuy liggéeyee et que aujourd'hui da ngay gis ni dans euh, certaines structures étatiques dafay am yoo xam ne nit ñi ñu ngi koy def mais euh, yenuwul maanaa jàppalewul aussi état mu nekk xaalis bi nga xam ne war na dëggu feneen am na ñoo xam ne dañ leen di voter budget mais du ñu mën a épuiser seen budget pendant toute l'année quest qui va se passer dañuy bàyyi suñu seetloo yenn moment yi ci anne bi fin d'année bi day bëri ay séminaires yu ñuy organiser ay missions yi nga xam ne ñu ngi koy kii pourquoi parce que ñu ci bëri ce n'est pas toutes les structures nag il faut bien préciser mais ñu ci bëri du ñu am fu ñu dugalati xaalis boobu ils sont obligés pour mën a euh, prouver euh, seen yenn euh, yi ñu leen joxoon par des nga xam xam ni c'est des dépenses euh, peut-être qui ne sont pas obligatoires c'est des dépenses yoo xam ne juste pour fàttu trou pendant ce temps nga gis ni Sénégal am nañ yenn problème yi nga xam ne ñu ngi koy rencontrer sur le plan économique am na yenn problème yoo xam ne ñu ngi koy rencontrer sur le plan social ainsi de suite et que ngay gis yenn structures yi yenn domaines yi yenn institutions yi di yàq xaalis si donc le premier ministre àdduna wax ci ñu xool nu ñuy yaxanalee li état bi di dépensé xool nu ñuy yaxanalee euh, li nga xam ne moom la ñuy euh, jagleel yenn euh, structures yi loolu day nekk jéego bi nga xam ne tey jii nii dina gën a mën a dundalaat suñu économie dina nekk xaalis boo xam ne am na feneen fu mu xaj mhm. mu nekk toujours lenn loo xam ne rek sénégalais yi war nañ am beneen taxawaay bu ñu am sénégalais yi war nañ am beneen vision bu ñu am ci réew mi et que aujourd'hui su dee am nañ ay njiit yoo xam ne am nañ yenn vision yi quiconque nekk sénégalais war nga cee mën a jàpp et que jàpp ci mooy tey jii nii mën nañ gis ay failles déplorer ko mais quand nous voyons des choses yi nga xam ne c'est des choses positives nous ne devons que les encourager mm. afin de euh, hisser notre pays au plus haut des rangs incha allah. D'accord.